accord mën nañ leen wax ne envoyé leen ay ñu def terme de référence ñaar moo mën a am mhm. ñu bàyyi leen ñu def terme de référence yi moonte ñoom ñooy décider di dialogue wala boog ñi nga xam ne d' accord nañu ñu daje pour am les termes de référence bu ci gën moo tax ñu ne nañu xool si yenn condition lañ koy defee boole nañ sax naan ak ñaata durée bi ñaata la mhm. nous avons été très précis parce que ñu yàkkamti wuñu ensuite écoute nous sommes pas nés de la dernière pluie juddoo yi démb donc loolu leer na bañu ñu terme de référence il faut mu am terme de référence mais ou bien moom mu déterminer ko surtout que moom nee na xamul sax lu ñu war a waxtaanee mais moonte na woote ñu wax ko ko te ñun déjà annoncé nañ ko ko. Mhm. annoncé nañ ko en 2019 annoncé nañ ko le 12 octobre man annoncé naa ko ci émission bi def ma ne ko yow lii moo war a nekk sa ordre du jour. d'accord euh, président ñu ñu gis ne que vous, vous avez été très clair ci ci position PDS ñu gis ñeneen ci opposition bi ñoom itamit euh, ñu ngi commencé euh, di di joxe le mot euh, ñi d'accord nañu ñi d'accord ñu am ñu wax ne que le président de la République Macky Sall est, est très fort parce que su waxee waxu dialogue c'est pour diviser l'opposition en quelque sorte opposition boo xamante ne defoon nañu bloc pour xeex lii di peut-être euh, président de la République pour opposer wu au président ban lecture amul bloc bloc bi tey du bloc bu opposé au président de la république non. bloc lan la non non c' est pas ça. Hmm. xam nga fi ngeen toog seen émission yi di wax ba su nekk. l' <laughs> opposition doit être unie doit être unie ñu wax leen ne il y a plusieurs oppositions. on est d' accord. waaw c' est à dire que euh, ñu bari ci presse bi euh, ils sont toujours rattrapés par le temps. ils ne savent pas euh, mënuñu jiitu événement pour lire ko li war a xam. ala kulli ali biir yeew yi dafa am ñoo xam ne ci kanam tuuti dañuy génn. parce que ay candidat lañ. bien sûr mënuñu nekk candidat ne dañuy laaj réew mi ba pare na ko nekk ci benn coalition kenn di leen jiite di leen waxal di leen defal bu boobaa ngoo danañu bokk parti coalition mën na am ñu abandonné seen bëgg-bëgg topp kenn koo xam ne kii moo leen gën a am position pour jiite réew mi loolu ci kanam tuuti dinañ dem parce que ci kanam tuuti ñun dinañu woo ñoo xam ne ñi xam nañ ni ñoom du ñu dem ñun ñoo leen ëpp doole te mën nañu ànd ak ñun ci consensus bu ñuy construire pour ale conquérir le pouvoir am na ci ñoom. Mhm. mais ñooñu dañuy dañuy wuy si ci kanam tuuti dinañ dañuy wuy si ñoom. ñun am nañ si parce que xam nañu seen bëgg-bëgg xam nañu li ñu bëgg ñoom xam nañu aussi seen capacité fi ñu war a nekk mais mën nañu feeñ ci dara. Parce qu'il vaut mieux être dans une organisation qui va, qui sait gagner et qui sait construire et qui veut construire que nekk dans une organisation du gagner mënul construire te kenn xamul lu mën donc par conséquent bu ma la bett y de des candidats potentiels ñoo xam ne ñi dañuy nekk candidat Déthié Fall day nekk candidat Abdourahmane Diouf day nekk candidat uh-huh. Habib Sy du nekk candidat moo demoon ñi nekk mën a nekk candidat dañuy ànd ñi mënul nekk candidat topp topp kenn et déjà ça se décide oui mais ñoom si seen ci seen coalition c'était clair depuis le début. Ah, waaw c'était clair depuis le début que euh, suñu demee élection ñii dañuy nekk candidat ñii suñu nekkul candidat dans tous les cas deuxième tour la ñuy regroupé wu. mais au sein de ce de de, de cette coalition même euh, est-ce que commencé wul di tasaaroo par rapport à l'appel du président de la République. Euh, ban coalition F24. Yewwi ci boppam avant ñu F24. xam nga il faut ñun nous tirons dañuy tirer ci histoire bi ñu am. Mhm. gis nga yi am na coalition bu ko jiitu de ñetti fan. waroon nu juddu avorté. Mhm. mooy la coalition Sempi. Ousmane Sonko mu koy mu may dégg xalifa mu may dégg dañ ko commencé woon à quatre la tax àggul Ousmane Sonko xam na ko xalifa xam na ko ba ñu tàggoo le lundi mercredi bi lañuy ñuy formé coalition mooy la Yewwi. Mm-hmm. mais ñoom ñëpp candidat lañu xam nga dañuy confondre chef de l'opposition ak leader leader ñoom seen leader effectivement Ousmane Sonko la mais chef de l'opposition dinañ ci dellu si kanam mm-hmm. mais ñoom dañuy tàggoo ci parce que ñoom ñëpp candidat lañu pourquoi mu ngeen bëgg mu warul surprendre kenn wala ku mu surprendre da ngay da ngay da ngay jéem a nax nit ñi rek ce ne, sera, ce ne sera pas une surprise dans le prochain jour qu'ils peuvent se séparer. Et ils doivent se séparer et dinañu au sein de du mouvement F24 euh, de la plateforme F24 ci boppam euh, ñu bëri ci biir ñoom itamit c'est des candidats yu regroupé wu. c'est des mouvements ay société civile entre autres ñu regroupé wu ci ci F24 F24 euh, ci biir aussi ñu bëri. ñii ñu ngi bëgg dem dialogue ñii bëgg ñu dem dialogue euh, comment analyser euh, cette cette cette chose wala comment analyser fait boobu noonu ci biir F24 loolu tamit. c'est normal c'est normal. tout à fait normal. bokkuñu parti bu ñu bokkoon parti bu fekkoon ni ñoo bokkoon gis-gis moo tax ñu bokk. mais kon est-ce que war nañ ñaañ ñi nga xamante ne dañoo taxaw assumer seen responsabilité bëgg dem dialogue. Euh, xam nga loolu mooy am naa droit wax te manque de démocratie la. manque d'esprit démocratique manque de pratique démocratique kenn warul dem kenn warul bokk fenn jox la ci exemple ñun on a dit mais ñun dañuy former une coalition tàggoo la yeew yi fam fale ñun ñu dem à côté mhm. mais fu ñu mujjee bi situation bi xamee ne dañu war a ànd ñoom ñoo ñu dabu wooñu ñu ànd a dem élection ñu am suffrage yi ñu am au niveau de de de l'assemblée mhm. assemblée bi sauf si je ma trop trompe, nous sommes le deuxième parti au point de vue effectif de député. ne am na ñu ne ñoom ñoo tax ñu am député. mais ñun ñoo tax ñu am député bu ñu amee député Kébémer ak Touba ñun la. ñun bu ñu amee député Casamance ñoom la. donc da ñoom lii am mooy ñoom ñun ñun dañ leen jox yàppu tabaski. ñoom ñu may ñu tere tam xarit <laughs> donc jeex na. loolu d'ailleurs mooy coalition. loolu mooy coalition donc am na. maintenant mhm. fan la ñuy mujjee et loolu moo war a am am na donc man ba ci problème. d'accord pour pourquoi ñu bokk bokkul. mais man a jox ay exemple concret. Mhm. mais yooyu bi ñu koy formé Bougane ngay dugg ci. si bokkul. Mhm. dafa démissionné en direct. oui. dafa bokk ba pare génn. mais ñun dañu ne au départ ne bokkuñu. moom dafa bokk ba pare génn en direct dans la télévision direct. Hmm. whatsapp la mais Cheikh Abdou Mbacké ñoo ne yéen dañ ko daax ne ko duñ la jël. Hmm. sur du pur pur moo ne ñun duñu ñu bokk moom parce que dafa tooñ suñu sëriñ mais ay la yëwén nag nit bu tooñee sa sëriñ ak ni sa sëriñ toll ak fi mu àgg ci àdduna nit tooñ ko mais nga am sañ-sañu ne doo toog ak moom. Uh-huh. mais am na ci ñoo xam ne sax bu fekkoon ne bu doo tooñee sëriñ boo moytu boo bokk ak ñoom jàkk ji <laughs> loolu bu ko defee ñun ñun est-ce que am na amuñu droit wax ne bokkuñu. ma la beneen exemple. Uh-huh. coalition jot na xam nga ko. Uh-huh. ku ko ñan ñoo ko créé woon. ñoom Sonko. ñoom Sonko Sonko wu ci. waaw ku démissionné ci CREC ci ci coalition bi nga bokk. mais nit am droit ne man bokkuma ci collation bi ñuy créé donc c'est-à-dire moo tax c'est un discours qui ne tient pas moo tax boo leen toppee seen discours ak seen pratique ba ci kanam c'est pour cette raison d'ailleurs situation yi ñu koy ñu koy traversé parce que amul cohérence ñun suñu cohérence foofu la ñu nekkoon Macky Sall dañ koy xeex du point de vue démocratique dinañ ci opposé démocratiquement bu ñu waree bokk bokk bu ñu warul bokk bokk bu ñu demee ba am dissension am ñu ne dañuy bokk am nañu bokk ñi bëgg bokk toog ñi dem comme ni Oumar Sarr dewoon nee moom dem na bokk na mais dafa ñëw à titre individuel et personnel. on s'en rappelle encore. yàggul. Mhm. mais ñun bi mu amee évolution tey mu leer mu leer ne ñun signé nañu euh, depuis le 12 mhm. octobre 2019 avec Macky Sall. Mhm. sous sa dictée moom moom ci boppam Macky moo dicté ak Ablaye di texte bi. Mayoro bind ko. Seydou Gueye ñëw ñu régler ko liir ko dañ ci wax ne dañuy dem vers le dialogue tout en examinant le problèmes électoraux et ensuite Abdoulaye Wade moo proposé ne ñu boole ci la situation de la gestion gazière et pétrolière donc ñun amuñu lu ñuy wax c'est les autres ñoo amul lay bëggoon ñu ko teg mais on est zen. <laughs> ñoo ñoo am lay bëgg leen ko teg mais ci loolu sax. la ñuy amul lay ñoo <laughs> d' accord ci loolu la ñuy duggee sur euh, euh, cette fameuse déclaration euh, de de.